sëriñ moor xari sëriñ moor xari si mi gane àdduna ci atu 1871 ci dëkk bu ñuy wax siin demba buuna siin demba buuna nag mi ngi ci njàmbur doom la ci soxna xari ak kii di maam mataar penda si maam mataar penda si mi ak maam Ousmane mi jur maam cheikh El Hadji Malick ñoo bokk benn waajur wu góor sëñ moor xari si bi matee dal lii di alxuraanul karim ci dëkk boobu di siin demba buuna fa la dalee alxuraan ci atu waajuram la jànge ba géeju lool ci wàllu xam-xam ak lii di alxuraanul karim moom kenn rek la bokkal waajur wu jigéen ñu koy wax sëriñ Malick Bassine si sëriñ Malick Bassine si nag mi ngi gane àdduna ci atum 1871 ci dëkk boobu itam ba tey di siin Demba na moom bi matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Malick Basin si waajuram di maam Matar Penda si moo ko dalal lii di alxuraan ginnaaw bi itam magam ji di sëriñ moor Xari si moo ko eggaleel lii di njàngum alxuraan ginnaaw bi nag lañ ko indi fii ci caaween jox ko nijaayam ku ñuy wax sëriñ moor Saaw fale eggalee lii di njàngum xam-xamam kon ñoom ñaar ñoo bokk benn waajuru góor ak benn waajuru jigéen kii di sëriñ Malick Bassine si li tax ñu koy wax Malick Bassine si kiñ ko duppee moo tuddoon Malick baasin waaye waajuram soxna xari ñang la tudd li tax ñu bëgg leen a waxtaane ñoom ñaar dañoo nekk ñaar ñu bokk waajuru góor ak waajur wu jigéen te bokkit lenn luñ defandoo ci ëttub seexul xaddiim bokk lenn itam luñ amandoo ci ëttub seexul xaddiim kenn mënu leen a tàqale moo tax ñu fas yéene leen a waxtaane ñoom ñaar kon ci atum 1905 ca guddik tabaski ga fekkoon na lu ko jiitu ñuy waaj ngir giseek seexul xaddiim ay mag ak rak lañ te bokkuñu woon dëkk bu ñu nekk ndax kii mi ngi woon ci waajuram ci siin mataar bi nga xam ne ni waajuram moo ko sanc kii mi ngi woon ci kër nijaayam di caaween di jàng lii di xam-xam ci atum 1905 boobu la sëriñ Malick Bassine si nag jóge fi mu doon jànge di caaween demaat siin mataar fekki magam ja sëriñ Mor Xari ñu tàggu seen waajur wa sëriñ mataar pend ngir fekki seexul xaddiim ci fi nga xam ne nii moom mooy gànnaar am na ñu ne sarsaara la am na ñu ne xomaag la waaye daal li wér te wér mooy gisee nañoo seexul xaddiim ci gànnaar bis bi nga xam ne nii moom lañ jógee Sénégal mën nañ koo jàpp guddik tabaski di ba ci guddi di 15 février 1905 dëppoo muy fukki fan ci weeru tabaski ci atu 1322 ci gàddaay gi doxu weer lañ ko dox ñi ngi egg fii di gànnaar ci gàdd gi seexul xaddiim nekkoon bisub àjjuma fukki fan ci weeru tamxarit ci atu 1323 ci gàddaay gi dëppoo vendredi le 17 mars 1905 guddi keroog bëkk néeg bi nekkoon ci gànnaar ñu koy wax sëriñ Matar Penda Dieng seexul xaddiim woon na leen ñu bàyyi fa reerub gan nakate mag ak rakk jii di ñëw di sëriñ Malick Bassine si ak sëriñ moor Xari si ñoo ca war a reer gàdd giñ daloon ci gànnaar di laajte fu seexul xaddiim nekk fa la leen ndaw lii di bëkk néeg bi di Matar Penda Dieng fekk ne ana Mor Xari si ak Malick Bassine si ñoom ñaar ñu ne tekk bam yàgg sëriñ Mor Xari ne problème sëriñ Malick def mu ne ko nañu wuy bi ñu eggee lañ nuyoon teeg seexul xaddiim ci gànnaar ñoom ñaar seexul xaddiim laaj na leen ana waa réew mi ñu tontu ko ginnaaw bi itam la leen wax na ana seen waajur ñu ne ko ma fa mu téye leen foofa ci gànnaar ab diir wax nañ ñu ne lu bari xew na gànnaar ci seen diggante ñoom ñett ñooñu ndax seexul xaddiim daana toog ba mu yàgg mu ne est xam ngeen ñaar ñee bu ko defee mag ñi ne déedéet mu ne de buñ jiitu woon alxuraan alxuraan alxuraan dana leen tudd toogaat na itam ci gànnaar ba mu yàgg mu ne ñaar ñee de yonent bi sàkk woon nañu boole leen ci seenu ñoñ waaye man la ko suñ boroom jagleel boole woon na leen itam ci daaray alxuraan ji nekkoon ci gànnaar muy li liñ tudde daaray kaamil ci gànnaar ñoom itam nekkoon nañ fa ñoom itam sàkku woon nañ ci seexul xaddim biñ koy tàggu ngir ñibbisi waat Sénégal ne ko ñu bëgg njaboot lañ ku leen gën a bëgg njaboot itam xamuñu ko buñ ko sañoon a wax daal dañuy wax ne kenn gënu leen koo bëgg am nañ ci seexul xadim te ñaan ko nu njaboot sax ci jàng alxuraanul karim ak bëggante te doyloonteeg wóoloonte loola itam seexul xadim nanguloon na leen ko lu tolloo ngeen fukki daaray alxuraan mi ngi tàkk ci réew mi te famille boobu ñoo koy doxal te benn fayu ci benn saxaru ci bañ fa defee ab diir la leen seexul xadim na leen delluwaat leen Sénégal su ngeen demee ngeen nekk ci seen ginnaaw waajur woo ba noppi koo gis ci lañ jógewaat gànnaar ñibbisiwaat réew mi Sénégal bi ñu ñëwee lañ fekki waat seen waajur wa ca dëkkam ba mu sanc ñu koy wax siin maxtaar bi seexul xaddim jóge gànnaar ñibbisi fi nga xam ne nii moom mooy cëyeen jolof ci résidence surveillée fekk nañ ko fa ziyaare ko ñoom ñaar ginnaaw bi itam bi mu demee njaareem itim daa nañ ko fekk njaareem di ko ziyaare ji ñoom ñaar waaye comme seexul xaddim woon na leen dem leen yor seen waajur wa ba noppi koo gis ci atu 1913 nag la seen waajur wa génn àdduna ñu koy wax maam mataar ñëwaat ci seexul xaddiim dooga nag yëbbuluwaat di ko topp lu jiitu ci at moom 1912 seexul xaddiim joxoon na ndigal kii di sëriñ Mor Xari Si mu dem ci département bu Koungheul sanc fa dëkk bu ñuy wax Daaru Marnaan kon moom ci dëkk bi mu njëkk a sanc ànd ko rakkam ji te moom mu sanc ko sëriñ Maxtaar Xari Si 1912 la ñu koy wax Daaru Marnaan Koungheul sëñ Maxtaar Si nag wéy di sanc ay dëkk ci atu 1917 sanc na dëkk bu ñuy wax Daarul Muxti ñu gën koo xam ci Kura Murit ci atu sanc na dëkk bu ñuy wax daarul salaam ñu gën koo xam ci bambuk ci atum 1936 sanc na dëkk bu ñuy wax mannal laa ci atum 1938 sanc na dëkk bu ñuy wax daarul nahim kon sëñ Mor Xari Si juróomi dëkk yii la sanc seexul xaddim itam joxoon na leen ndigal ñu nekk ci dëkk bii di daarul marnaan nekk ci garage yu Dakar bi def nañ fa diirum ñetti at ñoom ñaar ci 1920 nag lañ ziyaare ji woon seexul xaddim mu wax na leen ne bàyyee naa leen ak seen coobare kon nañu wax ne lii di ngërëm ci 1920 lañ ko am ñoom ñaar sëñ moor Xari Si nag ci dëkk yii la nekkoon di liggéeyal seexul xaddiim di ko tarbiya di fa yar ay njabootam mi ngi génn àdduna ci dëkkam bii di daaru salaam bambuk tam sanc ko ci atu 1934 tombeek altene juróomi fan ci weeru tabaski ci atu 1361 ci gàddaay gi altene juróomi fan ci weeru tabaski tombeek muy 1361 ci gàddaay gi dëppook lundi 14 décembre 1942 lundi 14 décembre 1942 ñu denc ko ci dëkkam boobu mu sancal boppam moom sëriñ Mor Xari Si kii di sëriñ moor xari si cheikh muhammadul murtada mbàkke ibnu seexul xaddim moo ko taxawu ci dëkkam boobu mu sanc di daaru salaam ñu denc ko foofit ci daaru salaam kii di rakkam ja sëriñ maalik baasin si ñëw nag am na ci dëkk boobu lu tollu juróom ñaari at ngir taxawu njaboot gi taxawu doomi boppam ak taalibey magam ya ngir dalalaat seen xel doog a ñëwaat nag ci liggéeyu boppam xalifay sëriñ moor xari si nii la tëdde ci atum ku ñuy wax wax sëriñ Adama Si moo ko wuutu ci atum 1970 ba atum 1981 ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Marema Si moo ko wuutu ci atum 1981 ba 2001 ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Xari Si moo ko wuutu ci atum 2001 ba 2002 ku ñuy wax sëriñ Mouhamadan Si moo ko wuutu ci atum 2002 ba 2005 ku ñuy wax sëriñ Hassan Si moo ko wuutu 2005 ba nëgëni ne ku ñuy wax sëriñ Ibra Aadam mooy nekk xalifa sëriñ Moor Xari Si sëriñ Moor Xari Si nag am na maggal guñ koy defal waaye waaye mooy guddik tamxarit gi mu gisee ak seexul xaddiim loolu itam moom mooy ak màggalam waxoon naa leen leen ne rakkam ji nga xam ne benn lañ muy sëriñ Malick Xarisi moom it bi leen seexul xaddiim dëlee ci dëkk bii di daaru marnaan ba ñu jóge fa moom nag ñëwoon na ci dëkk bii di wetu ndula dëkkan fa bu ñuy wax xulle bayal na fa seexul xaddiim lu tolloo fukki sàqi fukk ci wàllu dugub seexul xaddiim santoon na ko ca gërëm ko ca boole ko nag mu wéy nag di liggéeyal seexul sanc na lu tollu juróomi dëkk ñu ràññee ci rek Boussoura gi nga xam ne sanc na ko ci atum 1920 ci ndigalul mu dul faadal Mbacke moo ko tuddee Boussoura sanc na dëkk bu ñuy wax Daaru Halimul Xabiir ñu gën koo xam ci ndaam mi ngi ci kuppantum sanc na itam dëkk bu ñuy wax Taïf ñu gën koo xam ci sil ndax déeg ba fa nekk ci 1930 sanc na dëkk bu ñuy wax Misra taawam ba la ko bàyyeeloon ci atum 1943 sanc na itam dëkk bu ñuy wax Mbaabaan ci atum 1949 moom it juróomi dëkk yi la sanc sëriñ moor Xari si ak rakkam jii di sëriñ Malick Basin si sanc nañ kenn ku ne juróomi dëkk muy fukki dëkk yu ñu sanc ñoom ñaar seeni doom sanc nañ juróom ñetti dëkk seeni taalibe sanc nañ fukki dëkk ak juróom suñ boolee dëkk yi famille bi sanc ci fanweeri dëkk ak ñeent la toll ci dëkk yi nag la njaboot gi nekkoon doon liggéeyal seexul xaddiim doomi seexul xaddiim yi di fa yaraka tarbiya njaboot gi ak di fa jàngale alxuraan jëleen seexul xaddiim dénkoon sëriñ maalik xarisi ak magam ji di sëriñ moor xarisi bindal nañ seexul xaddiim lu tollu juróomi kaamili alxuraan keroog bañ koy jébbal seexul xaddiim ci njaareem ab oto lañ ko booleel ak juróomi kaamili ya sëfoor bi nga xam ne nii bi seexul xaddim làqoo ci atum 1927 ci fukki fan yaa juróom-ñeent ci mois de juillet Duudu Siise mi ko indi ci ñaari jëmm yu tedd yi la bàyyi ko ndax ñoom biñ nekkee ci seen dëkk yi doon liggéeyal seexul xaddim la am bis sëriñ Basiiru Mbàkke ibnu seexul xaddim ñëwoon fa seet si leen yoraale woon benn oto bu tudd pickup pickup boobu jëflante nañ ko ñoom ñett ñooñu daal ba mu des ci seen loxo ñoom ñaar Duudu Siise moo nekkoon ki doon dawal ba mbàkke ziyaare si leen yoroon oto bu ndaw weccoo leen ko pikool ba duudu siise des ca kër géy dawal oto ba bi ñu bindalee seexul xaddim kaamilu alxuraan yooyu ci dëkkam bi nga xam ne ni moom mooy daaru xalimul xabir te nekk ci wetu kuppantum biñ koy indi nag la duudu siise dawal oto ba bi biñ egsee lañ jox seexul xaddim kaamil ya ak lii di oto ba duudu siise des ca kër ga yor oto ba oto ba sëriñ Balla Coro la ko seexul xaddim joxoon duudu siise nekkaat kër sëriñ Balla Coro ak oto ba bi seexul xaddim bi mu génnee àdduna doon wër sëfoor bu teey te mën a dawal te yaru la xel yépp nag wax cheikh mamadul moustapha mbàkke duudu siise mu ngi fi kon lii mooy sababu duudu siise nekk ci kër seexul xaddiim lii mooy sababu duudu siise indi keroog oto bi seexul xaddiim dugg jóge njaareem indi ko tuubaa kon duudu siise ab saalum saalum la woon kii di sëriñ moor xari si ak sëriñ maalik baasin si ñoom ñaar ñi nekkoon nañu seexul xaddiim bàyyi woon xel ba njaareem seexul xaddiim daana ko def su guddee su mag ñi dee jàng ñaare mu woo leen ne leen kaay leen tekkil ma li xasida yi wax léeg-léeg itam daana leen wax loo dara ci mag ñi ñii itam daanañ ko wax soxlay mag ñi kon seexul xaddiim daana leen may nopp am na yeneen ak yeneen yoo xam ne ni du lu ñuy wax ci rajo te ñaar ñi séq nañ kook seexul xaddiim kër gi nga xam ne ni itam sëriñ Malick Bassine si moo ko moom ci Touba ci atum 1953 la ko mu mu dul faadal mbàkke nattal jëmm ju tedd jooju màggal na fa lii di ñaari yoon ci kër googu sëriñ ma roqee buso sëriñ baara xuréja sëriñ moodu masamba jóob ak kii di sëriñ buso safoor ñoo àndoon keroog bi cheikh dul faadal mbàkke di natt kër googu kii di sëriñ maalik baasin si mi génn àdduna ci dëkku boppam bim sancal boppam di mbaabaan ci atu 1949 mbaabaan ak Touba juróom ñett fukki kilomètre la ak ñeent fa la génnee àdduna bisub àjjuma ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru safar ci atum 1375 ci gàddaay gi ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru safar ci atum 1375 ci gàddaay gi dëppoo vendredi 14 octobre 1955 vendredi 14 octobre 1955 ñu jële ko mbaabaan cheikh mohamadul faadal mbakki ne nañ ko ko indil ci Touba oto bi ko jëlee mbaabaan indi ko ku ñuy wax sàmba atta njaay moo ko moomoon kero biñ ko indee Touba cheikh mohamadul faadal mbàkke mbàkke mooy ki ko jullee wax ne jëmm ji ku ko gis texe ñu fopp sëriñ maalik baasin si yëkkati ko ci kaw ñépp teg ci seen bët ñu jébbal ko suñu boroom ci wetu sëriñ muhammadu lamin gay ndax ñoom ñaar seexul xaddim moo leen waxoon ne yéenay dend ay kër ci àjjana sëriñ maalik baasin si ay xalifaam nii la tëdde sëriñ Modou Fati Sy moo ko wuutu ci 1955 ba 1982 sëriñ Mor Khary Sy moo ko wuutu 1982 ba 1985 sëriñ Moustapha Sy moo ko wuutu 1985 ba 1995 sëriñ Habibou Rassoul Sy moo ko wuutu ci atu 1995 ba 2001 sëriñ Saliou Sy moo ko wuutu 2001 ba 2006 2006 ba ndëgg ni nag doomam jii di sëriñ Modou Dem Sy mooy ki nga xam ne moom moo fi nekk sëriñ Malick Bassine Sy ak njabootam itam nekk nañ ñu ràññeeku ci yoonu murit ndax ñetteelu xalifaam bii di sëriñ Moustapha si nekk na jànkatu xasida bu ñépp ràññee woon lii di am njàngam tasaaroo na ci réew mi ñeenteelu xalifaam bi itam di sëriñ Habibu rasuul si nekkoon na itam chef di village ci tuuba ci xilaaf ak sëriñ tuuba Seex Saalihu Mbàkke kon njabootu sigi njaboot gu ràññeeku la ci tuuba moom it ni ñuy màggalee magam ji rek lañ koy màggale mooy bés bi mu gisee seexul xaddiim ci gànnaar muy guddi lii di tam xarit màggalam gi nag ci dëkk bu ñuy wax bustaan lañ ko njëkk a màggale waaye am na ay sëtëm yu baree bari yu koy màggal rawatina sëtëm bii di sëriñ Murtada Si ñuy ñaan ci barkeb ñaari jëmm yi di mag rakk ji te seen lépp di benn muy sëriñ Moor Xari Si ak sëriñ Malik Basin Si doomu soxna Xari ja ak maam Matar Pend Si ba ña àdduna ci dëkk bii di Siin Demba na di seen dëkku maam yàlla nañu leen yàlla fayal ci barkeb liggéey ba ñu defal Seexul Xadiim yiw mu tuur ko ci askanu Sénégal rawatina ci njabootuk sigi amin